dal leen ak jàmm ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram fii ci Le Monde Sport TV ñoo ngi leen di invité ngeen abonné te bés kolos de notification bi ngir di am ay doo yi nag vidéo yi xaw na dal di wàññeeku li ko war a moo di dañoo nekkoon ci ko ay ati ata leen seen i ci suuf nu ngeen gisee màggal gi yéen ñi ñëwoon ak ni yéen a tëral koy doore liste bi nga xamante moom la kili di El Tactico Aliou Cissé génn ay match amical

joueurs bu nu sukkandikoo nag ci FSF maanaam fédération sénégalaise de football mu ne góol ba ma nga fa teg Edouard Mendy moom nag yàgg nañu ko gis ci équipe bi Seny Dieng moom na fi ba tàyyi kili di Alfred Gomis moom it na ci waaye nag Mory Diaw góol bu bees El Tactico di Aliou Cissé moo ko bu nu wutalee nag défense ba Kalidou Koulibaly ndaanaan sunu capitaine bi waaye nag Abdou Diallo moom it ndaanaan la yàgg naa football ak moyeb Sénégal na ak moyeb Sénégal ba tàyyi kili nag di koo di Balla Touré moom it football na ak mayof Sénégal waaye nag kile nag di Moussa Niakhaté moom nag musta football ak mayof Sénégal Aliou da ko woo pour mu ñëw jàppale ñu kon nag Moussa Niakhaté dalal nañu la Ismaïla Jakobs moom it suur bu bees tàq la musta football ak mayof Sénégal di Noah Fadiga moom it football ak mayof Sénégal bu nu wutalee nag milieu de terrain ba ma nga fa teg Moustapha Naam football na ak ñun kile nag di Pape Gueye football na ak ñun kële nag di Idrissa Gana Gueye football na ak ñun Pape Gueye moom it football na ak ñun Idrissa Gana Gueye football na ak Maab Sénégal Nampalys Mendy football na ak ñun Mamadou Loum Ndiaye football na ak équipe nationale du Sénégal Pape Matar Sarr football na ak ñun Cheikhou Kouyaté sunu mag yi football na ak ñun kile nag di Pape Ismaïla Cissé jour bu bees la bu teg ca milieu de ba mu bëgg ñoo jàppale kile Krépin football na ak Maab Sénégal bu wutalee nag attaquant Keita Balde football na ak Moyab Sénégal Ismaïla Sarr football na ak Moyab Sénégal Bamba Dieng football na ak Moyab Sénégal ki leen nag di Iliman Ndiaye football na ak Moyab Sénégal waaye nag mën nañu ne benn match la ba jàpp ñaar ki leen nag di Boulaye Dia football na ak Moyab Sénégal Nicolas Jackson du jour bu bees tàq boo xamante ci nii dafa war a ñëw jàppale nu ki leen nag di Demba Seck moom it jour bu bees tàq la woo nañ ko bu yàgg waaye nag sorogul mayab Sénégal dugg ci terrain bi kon nag Aliou Cissé ñooñee la convoqué dañuy ñaan sunu borom mi maye ndam bu nu wutalee Qatar ci coupe du ba sunu borom may nu ko comme ni mu ñu ko mayee ci coupe de Afrique bi am nañu yaakaar kon nag Aliou Cissé ñi la ñu nekk sóor bu bees mu nekk nouveau sélection yoo xamante ci ni crédit el tactico Aliou Cissé jokkoon ak ñoom ñu xool ñi nga xamante ci ñoo di fédération sénégalaise de football ñu waxtaan ci ak Aliou Cissé Aliou Cissé xam gone yi gone yi ñoom it ne dañoo bëgg football ak Sadio Mané bëgg football ak Ismaïla Sarr ak ku ni Bamba Dieng di joueur yu mag ku ballon d'or ñaari yoon boobee lig askan woo ñoom nag li ñu xamle moo di noppi nañu football ak Sénégal Moussa Niakhaté nekk joueur boo xam ci ne joueur bu fiable la bu man la muy def lool waaye nag kili di Fadiga moom ne da di joueur bu man la muy def tey mu ne dafa bëgg toppandoo Fadiga muy Khalilou Fadiga di joueur bu mag ci Sénégal nee na nag dafa bëgg topp ay tànkam ba li mu bind ci taarix mu dal di koy bind waaye nag kili di Formose Mendy moom it di ndaanaan man la muy def lool kili nag di Nicolas Jackson di joueur bu bees la xam ma ne kii da di sin waa wala lu mu doon waaye nag Ismaïla Jakobs moom it mën a football lool kon nag nañu ñaanal sunu gaynde yi nga xamante ci nii ñoo ñu namm wutalil ca Qatar ca coupe du monde ba ngir dal ñu koy andil am nañu yaakaar lool ci ñoom kon nag Aliou Cissé dal dinay wëriwaat ay joueurs yoo xamante ci indi na leen fii la ci réewum Sénégal ngir ñu noppi dal di ñuy jàppale fii ci Sénégal li ko waral moo di nag coupe du monde ba ay xale du ñu fa dem waaye nag ay magit du ñu dem kan moo fay dem kuy dugal ay bii ku respecté ñi ngay zool ak koo xamante ci ne day paas ay paas joueurs yi dugal loolee la ñu fa soxla waaye nag sool xula wu ñu fa joueur boo xamante ci ne dafa siiw ci àddina bi wala joueur boo xamante ci ne dafa am tur la ñu fa soxla moo di kuy dugal wala kuy paas waaye ku am gëdd boo demee ci coupe ba nga xam ne ay équipe nationale yu mag ñoo fa ne ku xam France xam ne mag la équipe bu ñoo ko mujjee dal di jël kon nag Sénégal ñoo ngi dem coupe du monde ñoo ngi ñaan ci daraja yàlla suñu borom ci daraja màggal Tuubaa gii ñu jógee suñu borom kat defal ñu ci ndam waaye nag musal ñu ci cat ñu mën koo andi fii ci Sénégal kon nag dañuy tëj xibaar yi ba ci kanam tuuti ñu dem andi leen xibaar ya nga xamante ni may wadda ci Europe waaye nag bu leen fàtte nag partage vidéo bi ndax kat loolee danañu jàppale kon nag ci kanam tuuti rek ma dellu